waa kay man la Mamadou Gningue président directeur général ITECOM di aussi président du mouvement Alliance pour un Sénégal prospère qui soutient donc le président Macky Sall dans son travail donc euh, tey dama demoon seeti euh, village yi nga xam ni mooy village bi tudd Ndufuk ak euh, village bi nga tudd Ngumsaan dëkku séeréer yi nga xam ne ñoo nekk ci communauté rural bu ñu tuddee Fandène dëkk yooyu nag li ko gënoon a tax a jóg mooy seeti samay mbokk parce que man maa ngi tudd ma Mamadou Gningue ku dégg Mamadou Gningue xam ni Thiès la dëkk cosaanam mu nga cosaanoo Silma Ndufat Ngumsaan Peyku Fandeen loolu ay dëkk la yoo xam ne samay maam ñoom ñoo ko sanc ñu demoon fa nag ñu fa dëkk chef de village yeeg imaam yeeg ñëpp su dul samay rakk samay mag lañ wala samay sët loolu donc moo taxoon tey ma demoon ci dëkk boobu seeti ji leen waxtaan ak ñoom xool seeni tawat yëgal leen tamit ne seen doom jóg na monté benn mouvement boo xam ne dafa jóg pour liggéeyal Thiès liggéey ak Sénégal ànd ci ak président Macky Sall lépp li nga xam ne mun nañ ko def pour que réew mi gën a jëm kanam suñu mouvement bi nag moom dafa gën a am comme activité di jàppale jigéen ñi di leen financer. financement yooyu nag day tax di développement des femmes tax jigéen ñi gën a mën a suqali seen njaboot jàppale seeni doom jàppale seen i borom kër ah bi ñu ko yëgee nag d'habitude dañ doon organiser di de financer ci biir kër yi njëkkoon nañ ko def financer à peu une quarantaine de groupement de femmes pour une valeur approximative de quarante millions de francs ñu continuer nag financement boobu nga xam ni suñuy partenaire banquiers yi ak suñuy partenaires Euh, banque yi suñu partenaires étrangers yi ñoom ñoo ñu ci jàppale ba nga xam ne dinañ mën a gën a suqali jigéen ñi xale yi ci dëkk bi. ah financement bi ñu defi yoon tey nag benn groupement la boo xam ne mi ngi nekk ci Fandène euh, ci dëkk bu ñuy wax Ndufuk ak Ngumsaan chaque groupement tey jox nañ leen une valeur de un million de francs pour débuter donc ce qui fait en tout pour les deux villages un financement de deux million de francs boo xam ne joxagum nañ ko. jigéen ñi pour commencer liggéey ak ñoom ci seeni activité de développement des activités agricoles des activités d'aviculture des activités yoo xam ni de transformation agricole yoo xam ne dañ ko mën a def loolu lépp nag dañu jàpp ni politique du rek ànd ak jigéen ñi di wax danga nga war a xool li nga xam ne mën nañ ko nga jël ci li nga am jël ci sa xam-xam ànd ak ñoom di leen ci dimbale. tey nag kontaan nañ ci parce que bi ñu demee chef de village bi di Youssou Ndione ànd na ñun ci liggéey boobu. imaam rati bu dëkk bi imaam fay ànd naa ñun ci dëkk boobu notable yeeg ñëpp ñi nga xam ni ay kilifa lañ ci dëkk bi jóg nañu ànd ak ñun dooleel ñu gunge ñu présenté ñu ba nga xam ne dëkk bi yëpp wane nañ tey image yi ngeen gis dina ko wane ne dëkk bi yëpp ànd nañ ndaxte seen doom seen sët ak seen jarbaat ak seen nijaay moo ñëw taxawal leen di xeex ak ñoom di ànd ak ñoom pour que dëkk bi gën a dem kanam loolu daal mooy li nga xam ne moom moo ñu taxoon a jóg tey. di liggéeyal suñu réew ndaxte cees dafa laaj ñu am ci taxawaay bu bees cees nag yamul rek ci cees ville cees ci département bi yëpp la muy ba muy Fandène muy les villages yi nga xam ne ñoom ñoo wër cees yëpp dañoo bokk ci Thiès gannaaw nag liggéey bi nga xam ne moom bi def na ko biir cees ba léegi gëm nañ ni mooy le plus grand mouvement politique bi nga xam ne cees am na ko actuellement mouvement boobu di Alliance pour Sénégal prospère nga xam ne maa koy jiite moo àndandoo ak ses leaders et ses dirigeants pénétrer nag au au niveau du département commencé ko nag ci village séeréer noonu yi yi nga xam ne suñuy cosaan foofu la foofu la fekk baax. waaw effectivement bi ma demee du fa tey sa image war na ko wone gis naa ni que dëkk boobu éclairage amu fa gis naa ni aussi dëkk bi école yu baax amu fa école benn bi nga xam ne moo fa nekk école la boo xam ne c'est en paille. ci au niveau en mi deux mille dix huit deux mille dix ñaaw na ci Sénégal dëkk yoo xam ne tey c'est les banlieues de la ville de Thiès ñu gis ni que ndox mu set amu fa école bu xale yi mën a jàng amu fa may woo président de la république ak di woo maire ak autorités yi maire Augustin Tine ak l'ensemble des maires qui sont élus là-bas derrière le président de république mu jàppale ñu ndax ndax Ndufëg mun a am école boo xam ne jaar na yoon ñu am jumaa yoo xam ne jaar na yoon. am bitumage yoo xam ni jaar na yoon parce que léegi sanson ne sont plus des villages c'est des ce sont des c'est de grands quartiers rattachés à la ville de Thiès dëkk yooyu cosaanu Thiès la dëkku Thiès la laaj na ñu taxaw ci jàppale ko ba nga xam ne école dina fa am éclat dina loolu daal mooy seen problème ils ont aussi des problème d'emploi des jeunes d'éducation ñu wàcc ci taxaw war ko jubbanti war ko jubal ba nga xam ne wax dëgg yàlla autorité dinañ ci mën a xam lañ ci war a def